wajalilaayi maskani tubaaba liggéey bi mu sumb jëm si wàllub assainissement bu Touba Touba sa kanam tàmbali na phase bu njëkk bi si gox bi di 30 gu sexaw ga liggéey bi tàmbali na boo fi accès gis ni barab bi ni mu meloon ak ni ñu ko tàmbalee di soppee xam ni Touba sa kanam farlu na si liggéey bu nu mel naka noonu délégation bu mag moom la Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké porte-parole du xalif général des Mourides àndal ñëw ngir saytu si liggéey bi si turu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides bi mu ñëwé fekk na fi Serigne Abibou Mbaki mi kilifa yi Touba sa kanam ngir nag saytu wayu liggéey bi ki nga xamanteni mom moy ingénieur bi yor walu liggéey bi di ngantiam mom nak mi ngi léral Serigne bi barab yi ni mu meloon barab yi si bu jéggi dayo buñ ko fekkoon donon barab bu du sax mu amoon ay jéxindal si dem bi ak dëkk bi ak si askan wi nga xamanteni ñoo fekk ba fi mom nak delu si na si bi Touba sa kanam am ngir nak safara ko ba mu sax fi mu toll fii fii latérite bi yam nii li tax ñu yamagul fii li li ci topp dafa mel ni bi ñu euh, dëkkandoo yi waxee dafa am guy gu mag gu fa nekkoon loolu nag dafay tax bu amee ban dafay mel ni loo xamante ni faaw ñu dindi ko fi mu toll suba dañ fi indi bi nga moo fi nekk. dana ci gas daanaka lu mat ñaari mètre ci suuf ñu dog di traité loolu ba pare nag daal di continuer nga xamante bi ne ni boo liggéey danañ ko mën a def incha allah lool loolu loolu la def moom bu ñu bu ci noppee moo xam pavé la moo xam goudron la lu luñ ci bëgg a teg mën nañ ko cee teg ëllëg incha allah ba pare day méngoo ak leneen yi nga xam ne moo ci nekk ah. bu ci gën a yom pavé moo ci gën a yomb. pavé moo ci gën a yomb. pavé moom moo ci gën a yomb waaw waaw noonu noonu lañ koy def rek lal ci kaw ci dem bi nu si barab bi fi nga Kër Ñang tamit na barab bu am ay jafe-jafe ndox mi lëmbee na tamit mu am ay jeexintal si dundub askan wi Touba sa kanam jóg taxaw ngir indi fii nag sëriñ Bassirou Abdou Khadr Mbacke mi fi teewloon sëriñ Mountakha Mbacke Bachir yëkkati na ay kàddu gis ni kat taxawaayu tuuba sa kanam li ko laal mooy jëf ju bari ak wax ju tuuti rafet loolu nag lii mu jot a gis si liggéey bi gis ni kat lii de kawe na njortam te nag bu demee dina ko àggale si sëriñ Mountakha Mbacke Bachir mi ko yabal. la sëñ Abdoulaye daa wax. jëf du ànd ki wax. Hmm. lii moom jëf la. Hmm. lu ne fàng lu lu wala. walaysa man samiha kal mushahidi lii moom jàkkaarloo la moo tax waaw. waaye lii doom dal na xel. alhamdulilah xel bu baax a baax. alhamdulilah danaa ko daal leer sëñ bi lépp incha allah. ndax léegi lañ fa jógee maag sa yëngu sedd na xolam dal na ci yaakaar yéen a jugee rek. alhamdulilah. li mu ci wax ñëpp dégg ko ci lam ci yéene lam ci wax kawe na loolu. waaw kay waaw yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax. ndax moom liggéeyal Sëñ Tuubaa ñun ñëpp la war. nag bu ngeen bokkee ci sëñ bi boo bëgg ko jaayee lépp jëndee ko taalibe def na seen maam yi defoon loolu moom mooy liggéey bi waaw loolu moom yàlla nañ sëñ Tuubaa saxal te dimbali leen ci kattan na leen ci bu baax waaw. dal dal na suñu xel. xel. Touba sa kanam fas yéene wéy liggéey bi ci pàcc bu njëkk bi daanaka lu tollook ñaar fukki poñ si biir tuubaa ñu ne mekku ni am na ay jafe-jafe mu fa yéene ko sëkk wala sax mu def fa ay tali fexe nag ba fenn dootul taa lu nu mel nag taxoon na mu yëkkati woon lii di jaayante loole nag ñu koy wéyal saa su nekk ba mën a matal mbëbët yi ngir gox bu sell bi di Touba dootul amati benn jafe-jafe si wàllu assainissement. wajalilaayi بابات مثل اسمها بجاي خير ما نبات